Lamine Diagne laa tuddu bokk ci ñi ñu délégué pour ñu revendiquer sunu ay droit ay droit je dis ñun nag euh, bala ñu ci dugg tuuti daañu am ñu ñu remercier mënul ñàkk toutes les autorités étatiques religieuses ou parfois coutumières ñoom jàpp nañ ci ak imaam yi nekk Thiès ñoom ñëpp ñi ci waroon dox dox nañ ci ñi ngi leen di gërëm dañu mënul toog fii rek avec les ministre tout yëpp képp ku ci dugal sa loxo sa xaalis ak lu mu mënti doon ñu ngi lay sant loolu mënul ñàkk en commençant par son excellence Macky Sall moom li mu génne li mu wax nañu njëkk a jox génn na mais fañ ko awale moo ñu fi indi nii loolu loolu moom la ñuy moom la ñuy naqarlu naqarlu bi nag li ko waral mooy ñun ay extemporaire la ñu woon kooku war nañ ko priser ba mu leer extemporaire depuis les années quatre-vingt-un quatre-vingt soixante-dix-neuf et autres ci am ñoo xam ne dañ leen léser problème de reclassement la mu leer ci kanamu nit ñi moo ñu fi tax a toog ci reclassement boobu na leen neex lañ ko defalee kooku exploitation lañ koy tuddee daañ ci ñëwaat bala ñuy jeexal mais li ci am solo mooy am na ñuy véhiculer naan cinq pour cent la ñun jàng nañu école tuuti am na ñoo xam ne jàng nañu alxuraan tuuti am na ñoo xam ne am nañu yar ku ci nekk dañ lay soxla ña ca am yar xam nañ nañuy waxee ak mbooloo ña jàng alxuraan ñoom ña ngay ñaan pour yàlla jàppale ñu ñi ci jàng daañu mën sa texte cinq pour cent yi ñuy wax ëpp na ko parce bu ñu nee cinq pour cent mën nañu dagg 10 pour cent fay la 5 pour cent nga defee ne yaa ci ne muy benn deuxièmement dañu falsifier état état initial bi amoon par rapport ak état bu ñu créé en 48 heures daal di ñëw jaxase ko d'ailleurs euh, boo gisee ñoo xam ne ñoo bokk année bi ñu ñëw bokk cotation parfois titré avec une différence de 500 francs loolu dafa leer léegi li ñu bëgg ñun duñu ñaan du ñu saraxu ñaanuñu saraxuwuñu mais son excellence Macky Sall bu déggee lii ñuy wax mu jeter un coup d'œil wala mu xam na état moom ni muy doxee mu vérifier lii ñuy wax am na war a amul soo amul moom dina xam bu amee di ñu xam te ñun on est convaincu que bi ñu ñëwee biir chemin de fer on a vu le directeur des ressources humaines qu'on soit waxtaan ak moom ci affaire état ci affaire affaire yi mu wax ñu ni moom fa mu war a yem yem na fa cela veut dire que incapacité wane ne ko du tudd turam nag parce que du ma tooñ mais ñun ñuy cheminot ak li ko wër xam nañ kan lay wax beneen affaire bi mooy le euh, payeur bi jógee dakaar il devait nous recevoir par manque de respect mënuñu dinaa leen recevoir pour ñu trouver compromis il ne nous a pas reçu ñuy naqar loolu ñun nag am na fu ñu yem du ñu xuloo du ñu xeex du ñu saaga du ñu ñaan je l'avais dit tantôt mais lépp lu ñu war a dox lépp lu ñu war a wax daañ ci was lu àq ba ñu jox ñu suñu xaalis rembourse ñu ci anam bu mu gën a gaawee fi may jeexale nag mooy euh, l'agent judiciaire de l'État nee na il va nous recevoir mardi amul benn problème ñu fi xuloo duñ fi xeex duñ fi wax lu ñu warul wax mais bu ñu toogee ba mardi ba mu recevoir ñu wala recevoir ñu wala leneen lu ko niru lañuy def ñun daañu daje te daañ ko xam te su boobaa comme on fait face à un état boo xam ne du agir dafay réagir rek c'est-à-dire ci wolof mooy dañuy xaar ba dara am ñu doog ci jóg man li may ñaan état bi mooy ñu jóg ci lii balee dara di am wasalaam. Mame Mbaye Tounkara euh, secrétaire général. Euh, du syndicat SUTRA et président de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire, membre du collectif des extemporaires. L'objet de cette assemblée générale, c'est d'abord le paiement du contentieux des extemporaires euh, que le président de la République euh, a ordonné récemment. Vraiment, nous le remercions et le félicitons de la décision. Vraiment, c'est un dossier qui date de très longtemps, que nous avons part, euh, comme encore démarché auprès des autorités. Aujourd'hui, euh, le constat est fait. Nous avons constaté, euh, à l'issue du paiement, qu'un montant de 5% a été défalqué sur le montant de, des indemnités. Donc nous avons demandé au payeur, il nous a dit que bon, c'est les camarades, euh, un, un, groupe corpuscule de camarades euh, des extemporaires qui ont donné l'ordre de, de, de, comme encore, de prélèvement. Et ils ont comme argument que c'est l'Assemblée générale des extemporaires qui l'a autorisé. Nous sommes ici devant les camarades, le camarade Ousmane Ka, secrétaire général du syndicat FETRAI affilié à la synthèse, le représentant du camarade Mantassar, secrétaire général de FETRAI, SATRAI affilié à l'UNSAS. nu tous, en tant qu'organisation syndicale, on n'a jamais été informés du de, de, de, de, cession de 5% sur le montant des indemnités de, de, euh, Euh, du contentieux social. Donc, c'est nous qui devions l'autoriser en tant qu'organisation syndicale. Et nous n'avons jamais été informés d'une assemblée générale des extemporaires qui a autorisé hein, ces stations de 5%. Raison pour laquelle nous interpellons les autorités, à l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République et l'agent judiciaire de l'État, pour le remboursement immédiat des 5%. Ensuite, certains ont constaté que sur le traitement de leur des, des manquements sur le traitement administratif de leur dossier. C'est-à-dire euh, des gens qui sont dans, cette, dans une même filière professionnelle, qu'ils ont des montants différents. Ce qui fait que donc ça ne s'explique pas. Comment peut-on être dans cette même filière d'emploi, ayant exercé des années de service Et dans ce processus de régularisation de notre situation administrative, qu'on voit que certains peuvent même avoir un montant plus, deux fois plus, plus comme encore, euh, deux plus que, que, que son, que son Raison pour laquelle les camarades demandent à l'agence judiciaire de l'État pour qu'on puisse revoir les États. Deuxièmement, il y a la situation des gens qui avaient déposé leurs réclamations et qui ont vu que certains dossiers qui ont été récemment déposés ont été traités. Leur dossier a été laissé Donc voilà les trois points qui nous interpellent aujourd'hui. Et heureusement que l'agent judiciaire a été informé. Il nous convoque pour une rencontre le mardi prochain. Nous souhaitons qu'à l'issue de cette rencontre, qu'on puisse trouver une solution à tous ces problèmes.